asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum ah sama gars yi gars yi sama gars yi tey maa déglu tey ngeen maa déglu sama gars sama gars daal dañ doon daw gaynde daal si segg dañ doon daw gaynde daal si segg ah ñu koy maa ngi soo a xam maa ngi soog a comprendre lu tax gars yi bëgg a rafetlu élection yi lu tax bëgguñu dara dara dara si jàkkaarloo sëgg bëre maa ngi ko soog Diomaye dafa taxaw fi mu taxaw moo dëgër dafa taxaw si deux mille cent soixante six deux mille cent soixante six dafa dafa yéeme de dafa yéeme ci deux mille cent soixante six xam nga année poisson mi ngi commencé cent soixante avant Jésus-Christ jeex deux mille muy deux mille cent soixante mais deux mille ak léegi ak deux mille vingt quatre ñaata la vingt quatre ans la vingt quatre deux plus quatre muy six la six boo ko doolee si deux mille cent soixante dafa jox deux mille cent soixante six di jomay di muy danger lii rek a tax gaay di ko leer nañ day samp lii dong nag moo tax ñu koy daw lu leneen waaye bëri foog mu am ndax yaa daw gaynde dal si segg foo nga jàkkaarlu moom fokk bëri am te deux mille cent soixante six boo darboo cent quatorze dix neuf fois mooy jox deux mille cent soixante six jaam yu nag mooy cent quatorze di nombre saaru alxuraan tey bu la dara sax nga koy wër mun nga ko feeñal si yaa jaam yi kon koo koy mbooloo boroom mbooloo lañu woo de lii dong mooy problème bi il faut ñu jàkkaarloo moom te dafa leer nañu nag de leer na nañu bëgg bëre bañ bëre élection yi moom ah mbir maa ngi noonu de yéen a ko woo de wuy na leen nag léegi nag si kanam tuuti fii ak trente mille ngeen karma mu ñëw en direct détaillé ko sama gars yi bu leen sori léegi léegi si YouTube bi Pajtal TV incha allah rabbi bu leen sori.